Thank mm. you. 13h46 bon appétit si vous êtes à table ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média gërëm encore rédaction bi euh, Faty moo ñu présenté journal wolof bi ci kanam daañu àndaat ak ñoom boori 19h juste après Kouthia Show euh, di ngeen euh, àndaat ak ñoom ci info soir d'abord laata ñu leen di proposé ñaari jotaay yi bu wolof bi ak it bu français bi 20h dañ ci ànd ak Sarah Cissé en attendant ñu àggali waxtaan bi ak Yaxam Thiam avec beaucoup de plaisir tey elle prend sa pause ici ci télévision Euh, j'allais dire nationale mais télévision <laughs> Futurs Médias sotti ci ak def ci la. Euh, ñu bëgg euh, ci waxtaan bi ñu séq ak moom ngir waxtaan. Mhm. ci association bi la nga xamante ni yaay la ko tuddee on va retrouver aussi Mamadou Ndiaye xam naa bu ca kanamee tuuti ci réseaux sociaux yi et on a vu balaa nga ñuy raconter histoire bu association bi. gis nañu liggéey bu bëri bu ngeen di def. yaa ngi koy jàllale ci réseaux sociaux yi. sur ta page Facebook par exemple. tout ce que tu fais comme action sociale dañ ko ci gis. comme quoi digital bi itam a njëriñ. ah non c'est c'est extrêmement important je mm. pense que léegi digital bi on ne peut plus rien faire sans euh, boole ci digital bi. Mm-hmm. tout simplement parce que nous on a besoin euh, de de faire ça avec nos partenaires. Mm-hmm. parce que xam nga ne association bu taxawee am ay partenaires yu nga xamante ne bi ñoom ñoo ciy jàpp. Mm-hmm. pour ñun tamit ñu mun jàppale. donc ñooñu tamit euh, dañu soxla une certaine visibilité. pour que li nga xamante ne dañu ñu koy jox. ñu xam exactement fi muy jaar loolu moo tax à Mhm. Koulibaly Koulibaly mhm. daf may wax mais tu peux arrêter avec tes vidéos toi mhm. j'ai dit non j'arrête pas avec mes vidéos parce, que, que tout simplement euh, il faut vulgariser et c'est ouais. important on a des gens qui nous accompagnent mm. et, et ça faut vulgariser comment est née cette association naka la association yaay yi maanaam les mamans naka la association bi judd alors d'abord dama lay wax signification yaay yi yaay yi c'est YA euh, les deux premières lettres de mon prénom Yaham ak AI tréma muy les deux premières lettres de madame Dour Aïda. Mhm. donc mu nekk yaay yi boo ko boo ko dégg-dégg si wolof yaay yi. yaay yi la lay jox alors euh, c'était c'est une découverte de madame Dour. Mhm. j'avoue parce que nag bu ñu fàtte ne que euh, Aïda dafa def communication. Mhm. et que li muy li muy liggéey ci suuf. parce que bu ñu bindee lettre sax mooy corriger. c'est extraordinaire. alors euh, yaay yi dafa dafa juddu après une première. association bi nga xamante ne bi aussi maa doon présidente bi mhm. alors cette association la bi ñu ko sosee mhm. justement c'est parti de la Sono mondiale mhm. euh, bi ñu ko sosee euh, moi j'étais en train de chercher quelqu'un une personne ba nga xamante ne bi méngoo na ak man ni may yëkk ak li may xalaat euh, pour def ko marraine alors madame Dour dafa nekk xaritu sama grand frère. alors à chaque fois elle me dit arrête de dire que sama xaritu grand frère la parce que mais yow yaa ma mag. <laughs> je dis ok ça c'est vrai mais sama xaritu grand frère la manqué lui dayo uh-huh. euh, Assane Thiam nekk steward à Delta Airlines. Uh-huh. alors il des moments yoo xam ne dañu doon dem këram. Uh-huh. léegi bu ñu demee këram xam nga nit mu nga ko tere lu nekk ba mu des xoole ak déglu. donc moi j'étais là j'accompagnais mon frère et euh, dugg génn je regardais avec les enfants je regardais ce qu'elle faisait ma ne tiens mais pourquoi pas et puis en plus elle on ne l'entend pas. mu nekk une maman poule en fait. exactement ouais. et on ne l'entend pas et pourtant je vois comment comment elle elle, elle fonctionne comment mm-hmm. elle est avec ses enfants et avec d'autres enfants. Mm-hmm. bon ma ne bon je vais je vais proposer alors ñu waxtaan ma ne ko bon man je je vais te faire marraine de notre association mu ne ma hmm? je dis oui. et je sais que tu vas être une excellente marraine. Mm -hmm. donc c'est parti de là d'abord cette association. elle a été la marraine. Mmh. Et quand j'ai quitté cette, cette association, mhm. euh, elle m'a dit, bah, écoute, on va créer notre association mmh. qui va s'appeler Yaay j'ai dit waaw. quel <laughs> quel comme ça idée bi ñëw nii tur bi ñëw noonu. idée bi ñëw nii tur bi ñëw noonu. Mhm. et puis voilà c'est de là où est partie justement cette association. Mhm. Yaay qui œuvre pour euh, les démunis en général. mais dañu accès ñun surtout ci euh, les enfants. accès si orphelinat yi. accès si faj ay xale. Mhm. et cetera et cetera mais vraiment il y a une euh, une complicité il y a euh, un vouloir faire il y a justement dañu wuyu tur bi. sa sa sa sa yaay yi mhm. les les mamans que nous sommes. Mhm. Euh, je t'assure que euh, c'est très fort et les enfants euh, que nous rendons visite nous le rendent. extrêmement bien. on on on est en de euh, regarder en même temps quelques images. yoo xamante ni jëlee nañu ko. Ah, euh, ci euh, œuvre yi nga xam ne yéen ngi koy def. ba tey comment vous faites pour avoir autant de moyens. Mm-hmm. wala autant de denrées. gis naa ni ci seen action bi mujj yóbbu ngeen ay saaku ceeb. Mm-hmm. yóbbu ngeen ay <laughs> dundu. ci orphelinat Kër Serigne Saliou si je ne me trompe. absolument c'est bien ça. mais comment vous faites pour am wu jàppale. ay xale yu ko soxla comment vous faites. alors déjà euh, suñu marraine. Euh, du du du génn. Mm -hmm. d'ailleurs euh, à chaque fois dama koy forcer mais pourquoi tu parles pas dis non non non non donc man maa yore wax ci. Mhm. parce que sama liggéey la. Mhm. mais il faut savoir qu'elle fait un travail. extraordinaire derrière. Mm -hmm. Elle a des partenaires extraordinaires. Ah. Et, et, je veux juste souligner une chose, mm -hmm. que, que Madame Dour Aïda Koulibaly, elle nekkul ci première fois muy def social mm-hmm. c'est-à-dire que instant bi su ma la doon wax xale yi mu faj mm-hmm. euh, ñi mu yóbbu mag euh, li mu def yëpp mm-hmm. euh, duñ fi jógee quoi parce que elle avait l'habitude de le faire alors Aïda dafa am ay partenaires yu nga xamante ne bi macha allah su jógee ñoo ñu jóg man tamit am naa nit yu nga xam ne su ma jugee ñu jóg donc euh, dañuy saluer justement la fondation yu sundur mhm. parce que amul action boo xamante ne bi man def naa ko te jàpp ci non d'accord c'est-à-dire que bi nga gis ne que ci réseaux sociaux yi tout mhm. dernièrement mhm. je veux dire kees yi ñu jëlee si suñu stock parce que ñu doon am ay stock c'est énorme alors la fondation Youssou Ndour nous aide énormément Euh, les amis de Harouna Dia maa ngi nuyu Mousli Fall. Mhm. ngi nekk ca Tata Mousli Italie Italie. Euh, dañuy elle est de dañuy dimbale mhm. ku mel ni xaritu Aïda la. Mhm. Sidiki la tudd. Euh, je te dis que je l'ai jamais vu. mais Sidiki bu ñuy bu ñuy accompagner. ay ay tonne tonnu ceeb. kees yi on on peut pas. mais Pape li ma gën a neex ci yaay yi bi. mooy que suñu baptême de feu on l'a fait à Touba. et ça vraiment en tant que taalibe Serigne Touba. voilà dafa nekk loo xam ne daf ñu neex. parce que ñu bëri dañu réeree woon mbir ne que Touba am na orphelinat. en effet Touba am na orphelinat. bu Maam euh, Diarra. alors y a des enfants qui sont là-bas mais je te jure qu'on on est parti à Touba. Euh, def don yañ fa def. vraiment ak ñi ñu jàppale yëpp. Euh, li ma ci gën a neex nag mooy aussi euh, sëñ Bass Abdou Khadre mhm. euh, ci moom la ñu la dem mhm. waaye nag laata may dem parce que nag soxna Bali sama yaay la mhm. dama ko woo la mu ne ma écoute boo leen yegsee Touba maa leen di dalal mën ko donc elle l'a fait d'une façon extraordinaire donc kër soxna mun Muntaxa macha allah la ñu yendu donc def fa un extraordinaire parce que tamit oh, j'ai discuté avec elle moom i tamit taxawal na fondation Soxna Bali. Mhm. bu def des choses ah extraordinaires. ah oui moom ay camions wu dund. extraordinaire ay ay camions wu dund. je vais te dire première fois en six mois. Euh, 62 63 millions. Mm -hmm. de denrées. mais après nii ci màggal bi c'était quoi c'était au moins euh, plus de 100 millions. Mhm. donc voilà euh, des personnes yu nga xamante ne bii dañuy xool ak ñoom di lëkkaloo ak ñoom pour dëgg ci euh, euh, dimbale xale yi parce que mhm. Pape man def benn plaidoyer mhm. par rapport aux enfants mhm. parce que bëri nañu ci orphelinat yi mhm. ils ont besoin d'aide ils ont besoin de euh, dama ko doon wax ci benn rajo am ku ne ma ah yaa xam da nga dawloo sama yaram ma ne ko c'est la vérité je sais pas ndax am ngeen image boobu am na vendredi passé dem nañu ku kunun parce que waa parcelle dañu dañ leen toxu dem kunun mais madame Dour euh, gis nga xale bi mu téye woon xale bi euh, daf ko kott kott bu nga xamante ne bu ko bàyyee muy jooy là là là en fait c'était euh, benn arbre de Noël. Mm -hmm. parce que ñoom itamit ils ont des droits les enfants ah. Mm -hmm. droit à loisir droit euh, euh, à la santé euh, ils ont des droits yu nga xamante ne bi dañ leen ko war a jox. Mm-hmm. mais euh, xale yi des fois euh, il faut pas que nit ñi xalaat ne que c'est juste que dañ leen war a yóbbul meew dëwlin machin non mm-hmm. ils ont besoin d'affection. Mm -hmm. parce que ñi leen yore mënuñu fabandoo ñëpp. Mm-hmm. donc madame Dour très sensible. à tout ça euh, daf naan ma mais mi ngi mi ngi jooy ma ko bi mi ngi jooy euh, mu jëlaat téye mhm. et après euh, obligé donc même boo amul leen jox de temps en temps dem fa fopp leen rek. parce que duñu ko am tout le temps rek c'est seen loxo yi la ñuy yëkkati

ci image yi vous avez vu on était à euh, Déni Biram Ndao mm-hmm. le village pilote que peut-être les Sénégalais ne connaissent pas mm-hmm. foofu tam def nañ fa ay dons mm-hmm. extraordinaires alors Déni Biram Ndao euh, c'est un Français euh, qui a construit sur des hectares buy accueillir des enfants de la rue donc am na capacité d'accueil de 250 alors pourquoi je remercie la famille Ndour parce qu'en fait si tu veux Aïda non seulement day ñëw joxe ànd ak ñi muy ñi muy àndal mais elle vient avec ses enfants elle vient avec toute sa famille. pour lan pour wan xale yi. parce que je pense que loolu itam dafa bokk ci éducation wan xale mhm. Pape Cheikh euh, toutes les bonnes volontés qui nous accompagnent. Mhm. Euh, vraiment bu ma leen limee ça va être compliqué. Euh, Mariama Guigon nous accompagne Sidiki Lin Sow Lin amul amul. action bu ñu def te ñëwul. Mhm. Magal yee avec nous. Mhm. alors je vais te dire que euh, tellement c'est fort entre li nga xam ne dañ koy def. Mhm. mooy la Francine Koulibaly. ku nekk xam na ne que la maman de Aïda elle est médecin. alors des fois aussi nous on rencontre des difficultés. parce que. man sama bopp damay jooy mais Aïda aussi pareil hein ouais. <laughs> parce que on a eu un enfant qui s'appelait Fallou mm-hmm. euh, maladie d'Hirschsprung mm-hmm. le le xale bi amoon mm-hmm. nekkoon dëkkoon Touba Toul euh, des difficultés pour le faire pour se faire soigner et donc j'ai parlé à euh, Aïda on a parlé donc à, à la maman Francine Koulibaly qui tout de suite Francine nous a trouvé un million et quelques. Mhm. ci doowu kenn ku mu xam. pour xale boobu donc euh, on a. je pense que am nañu image yi sax. waaw ana xale bi léegi. Euh, décédé. alors c'est pour ça que Pape même ñun aussi euh, c'est très dur parce qu'il avait sept ans bi ñu koy yóbbu voilà te je t'ai montré les images. Mhm. Euh, dem nañu fay nañu hospitalisé nañ ko opéré nañ. Mhm. alors tu te rends compte que. par exemple moi je suis au téléphone avec euh, avec la maman. ñi ngi polyclinique war nañ ko yóbbu Albert Royer. et en fin de compte qu'est-ce qu'on me sort. xale bi gaañu na donc tu vois man sur le plan émotionnel c'est très compliqué mm-hmm. mais on va continuer à se battre parce que mm-hmm. ce sont des enfants et ce sont des personnes mm-hmm. euh, vulnérables yu nga xamante ne bii dañu ñuy soxla donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on appelle euh, vraiment euh, suñu ay partenaires ak nit yi nga xamante ne dañuy ànd ak ñun ñu jàpp ci alors par exemple il y a une maman qui s'appelle Tata Mbenn Ndaw mi ngi dëkk fële Yarax c'est notre secrétaire une belle équipe et une équipe de femmes hmm. espérons que les hommes vont nous rejoindre. il y a plein de gens il y de gens qui demandent naka la ñu a def pour jàppale association bi. oui euh, bëri na itam ay nit yu laajte naka la ñu mën a def ba bokk ci. Hmm. je pense qu'on vous donnera numéro de téléphone. Absolument. compte Facebook Twitter Instagram tout ça. Hmm. Euh, dinañ leen ak Yaxam qui est donc présidente euh, de cette association. Absolument. et nous nous recevons ces personnes yi nga xamante ni dañuy indi luy neex ci xol. ay nit yu ko soxla jàppale yaa xam di utiliser turam mhm. euh, marraine bi itam di ci jàpp mhm. fondation Youssou Ndour ak d'autres partenaires mhm. il y a d'autres yoo xamante ni xam naa dinañu pare euh, pour jàpp ci association euh, yaay yi on va continuer cette discussion ak yaa xam ci kanam tuuti en attendant am na itam loo xamante ni du ñàkk ci émission bi on découvre tous les jours li xew biir internet Mamadou Ndiaye lañ ci àndal je pense que bu paree rek ñun pare nañu parmi sujet yi nga xamante ni Mamadou Ndiaye Euh, ah. dina ko waxtaanee. Mhm. Euh, bokk na ci euh, procès Barthélémy Diaz certaines vidéos sont devenues virales depuis déjà démb. Mhm. et puis voilà il y a aussi une autre vidéo qui est virale benn africaine bu toog ci benn plateau télé française di expliquer jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom. selon ses dires am nañu ko ci yónnee xaalis tout le temps Afrique <laughs> donc ay eh, di bu doon seen sago eh, ñoom dootuñu yónnee kenn xaalis parce que bu ñu yónnee xaalis ñun waa Afrique dafay tax ñu yaafus je pense qu'elle doit être folle même si j'ai pas le droit de commenter eh, ci propos yooyu noonu dañ ciy ànd ak Mamadou Ndiaye looloo xew biir internet. jaajëf Futurs Médias je rappelle que programme bi li ciy topp itam mooy dàq puisque di ngeen ànd ak Pa Yeew Teere euh, mu gunge leen dans quelques minutes bu noppee ngeen ànd ak Evatra Mami Diop ak euh, inspecteur Ndoye Bane Abba et sa bande ci seetu Sénégal itam ne ratez surtout pas 18h Kouthia euh, ci Kouthia Show ainsi de suite ainsi de suite et puis Kebs aussi mu ngi préparé pour. Euh, proposer leen euh, diaspora ce sera à partir de dix huit dix sept heures dix huit heures voilà donc lépp loo xam ne jëm na euh, ci taxawaayu sénégalais yi nekk bitim réew Kebs Thiam mooy seen ambassadrice dina ci ànd ak yéen Kebs on va en profiter pour jaale ko gorom bi nga xamante ni dafa génn àddina yaayu njóogu borom këram donc ñu ngi koy xalaat mais quand même elle vous accompagnera ca kanam boori dix sept heures dix huit heures ci li nga xamante ni moo di diaspora sinon tey ci guddi gi dinaa dellu siwaat ngir man Mbaye Dieye Faye ak El Hadj Mon Mbaye Garmi dina am hommage bu mag boo xam ni dinañ ko rendre El Hadj mbay euh, tey nag te mu wëndeelu Pa Mansour mbay la te ku ne xam ne ni Pa Mansour mbay mooy Sénégal donc tey incha allah 22h deuxième partie de bi lépp luy tukkee ci euh, émission boobule El Hadj Mansour Mbaye la ñu koy jagleel donc na mag ñu jóg géwél yi jóg ndaanaan yi jóg bu ko defee ñu wéttali ko euh, sunu wayjur boobule nga xam ni gudd fan rek la ñu koy ñaanal suñu borom gën ko dëgëral parce que Pa Mansour Mbaye kenn dootul naat naatable euh, ni euh, icône la ñoom nag ay icône la ñu euh, ñu ngi bàyyeekoo ci wàllu expérience fu ñu naan télévision nationale triangle sud 58 boulevard de la république ñun ñi ci école yooyu la ñu jógee mhm. donc bu ñu amee Pa Mansour Mbaye am yaa xam mhm. am Mariam Samba ak mhm. yeneen i icône ci wàllu média dafay doon suñu fierté pour Sénégal yëpp donc tey ce sera un plaisir ñu waxtaane ki nga xam ni moo di El Hadj Mansour Mbaye ce sera à partir de 2h Yakham oui. et je sais que tu as regardé ah ben moi je, je vous suis hein. ouais, euh, ouais. Euh, tu sais bien que je te regarde. Euh, c'est sûr tous les jours tout le temps et je vois ce que tu <laughs> fais et justement j'en profite pour euh, euh, féliciter toute l'équipe de de télévision Futur Média euh, féliciter Bouba Ndour mm-hmm. Ndiaga enfin tout le monde. Mm -hmm. je vous regarde et et dama fi am ñoo xam ne dama leen fort en fait. Mm mm-hmm. -hmm. quelqu'un comme Mame Fatou Ndoye. Mame Fatou Ndoye. à <laughs> <laughs> maam Fatou eh, Ndoye Traoré. <laughs> elle fait un excellent travail. waaw waaw moom itam ci vieille école bi la bokk quoi nostalgie RTS et tout ça donc on finit ak euh, balaa ngay joxe message bi. waaw euh, j'ai eu un commentaire tout de suite quelqu'un qui disait. est-ce que association bi euh, active na ci réseaux sociaux yi. waaw alors man maay utiliser. comme tu l'as dit, dit, si bien dit tout à l'heure, mmh. ma page, etc. etc. Mmh. Mais on va arriver à... Parce que bon, il fallait se faire connaître. Mm-hmm. Euh, de par man, mm-hmm. mon image et voilà, dit Google tout le temps euh, Madame Dour. Mm-hmm. Mais il y a vraiment défaire site, défaire, etc. Parce que en fait, Pape, on a, on a beaucoup de projets pour les enfants. Parce que toutes les mamans, hein, toutes les femmes en fait j'allais dire parce que du du ko jigéen bu jur rek yaay la mhm. dañu judd ñun ñëpp mhm. nous sommes des mamans mhm. yéen góor yi da ngeen judd yéen vous êtes des papas donc c'est à nous de en aide euh, aux enfants sénégalais et même voire du monde. Mm -hmm. parce qu'on s'en arrête pas qu'aux enfants sénégalais. Mm -hmm. mais les enfants en général. Mhm. xamuñu dara. Mhm. ay moomin lañu. Mhm. ñun ñoo féete mag. xëy na ñoo nekk ay porteurs de voix. xëy na ñoo xam ñu am ay na nañu ci jàpp. pour que xale yooyu mu nekk ci jàmm. alors les grands projets. de yaay yi c'est que dañu bëgg. sénégalais yi ak bonne volonté yi jàppale ñu. pour hôpital. da ngeen bëgg tabax hôpital. waaw mhm. c' est important. Mhm. hôpital bi may wax nii hôpitalu xale la. Mhm. man dama ci taamu woon. xale yi nga xam ne dañu am cancer lu tax. parce que c'est une maladie boo xam ne euh, boo ko amee dañ la war a accompagner. sur le plan émotionnel. et man dama gis ne que parce que je l'ai vécu j'ai une petite sœur qui est décédée cancer. que parents yi dañuy xaar ba guddi. presque pour ñu mun gis seen doom. donc bëggoon nañu xale yooyu. parents yi mun leen accompagner ci structure de santé mhm. waaye tamit orphelinat moderne mhm. boo xamante ne bi dina mun accueillir ay xale mhm. c'est des grands projets mais je sais qu'au Sénégal il a de bonnes volontés qui pourront nous accompagner xam ñu lu ñu soxla ñu ne ñu terrain ngi nii ñu ne ñu ay ay ay moo la ngi nii. Mhm. ñu ne ñu kenn kuy tabax parce que on a mhm. déjà une femme. Mhm. architecte architecte ah mais c'est bien Aïssatou Diagne. moom nee nañu y a pas de souci. je vous offre les plans. donc keneen bu defee noonu keneen def noonu. mais je pense que Pape on va y arriver. parce que euh, l'avenir d'un pays. mi ngi ci loxo yi. xale yi. et pour membre wala pour association bi a un numéro de téléphone. alors j'ose pas trop donner. Ah, mon numéro de téléphone. <laughs> mais on donnera un numéro de téléphone. Mm-hmm. ba nga xamante ne bii dinañ en attendant ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. parce je suis certaine. Mm-hmm. que tu fais partie de Yaay. à partir d'aujourd'hui ci je suis membre. ci contacter. parce que comme tu le sais bon. vendredi passé mhm. la ñu jógee kunun mhm. on fait des choses yu nga xamante bi peut-être des duñ ko duñ ko yóbbu ci télé yi mhm. mais réseaux sociaux yi ñi may suivre dinañ gis yi nga xamante ne bi macha allah yaay ngi koy def bu baax a baax alors damay remercier bu baax a baax madame Ndour pourquoi parce que il est rare ñu gis ko où que ce soit mais su ma ko ne jógal day jóg ànd day jóg parce que ñi muy fekki la parce que mm. xale yi la. Mm. parce que boobu ba léegi et puis bon ñun suñu demee fenn. Mm. on s'arrête pas à y aller une fois. dañuy dem def suivi. alors je rappelle qu'on a quand même fait Kaolack euh, voilà am na gox yu bëri yi nga xamante ne bi euh, def nañ ko. ci orphelinat yi te ba léegi ñooñu soxla nañu Pape. ndimbalu sénégalais yi moo tax ñun ñun bëgguñu dara soxla soxlawuñu dara xam nga lu ñu bëgg mm-hmm. le sourire des enfants incha allah c'est tout te dina am. c'est tout merci en tout on va finir cette émission je rappelle que je donnerai un numéro bu ngeen mën a contacter association bi euh, sur mes comptes hein, avec euh, ma communauté sur Facebook Absolument. Twitter Instagram YouTube. Pape Cheikh Diallo Univers. sur Facebook aussi Yakham Thiam est très présente. Mm-hmm. euh, là-bas aussi on pourra vous donner ay euh, contacter tout fépp fu euh, lépp ci lépp association bi nekk ñun ñu ngi ci. Mhm. ndax Euh, parce que ñun itam dañu bëgg lu baax te yéen da ngeen ñu yar euh, ci solidarité boobu quel sera le mot de la fin la fameuse phrase des journalistes alors mot de la fin moi je vais dire solidarité mhm. pour tous. Mhm. Euh, ça a été un plaisir en tout cas merci. de partager ce plateau avec toi, Pape mhm. Cher. Encore une fois, merci à... Les gens l'appellent Aïda, moi je dis marraine, marraine tout ouais. simplement. C'est une très belle personne. Euh, merci à Youssou, parce que s'il n'avait pas permis aussi, peut-être que xëy na du ànd ak ñun di def di def liggéey bi ñuy def. Euh, je remercie euh, toutes les équipes techniques de télévision Futur Média. maa ngi nuyu euh, euh, waa RTS parce que certainement ñoom itamit ñu ngi seetaan di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam mm-hmm. yàlla na fi jàmm sax ci suñu réew et toi you know how I love you I love you too <laughs> <laughs> Thank you so much. Merci à tous. Marie-Louise Ndiaye, journaliste, Madame Cissé a dit euh, Yaxam, euh, est toujours jolie. <laughs> Marie-Louise, yóbbante bi àgg na. On a reçu yeneen yóbbante Tata Fanta Fifi Kanté. Mhm. Euh, merci pour ce beau message et puis yéen ñi bëgg merci d'aimer cette personne parce que moi je l'aime de toutes mes forces a oh. Sama xol euh, la Yaxam nekk. Ah, Bëgguma jeexal émission bi mais dama koy jeexal mhm. dem añ ak moom. Uh-huh. Yéen su fekkee yéen a ngi añ bon appétit. wëndeelu boo xamante ni El Hadj mbay Mbaye la ñu koy jagleel sinon euh, déclic euh, j'allais dire euh, midi plus dina dellu si incha allah suba 11 h cinq daañu ngénte album mbalax Youssou Ndour donc suba la koy génne euh, Super Étoile euh, Mbaye Dieye Faye sera avec lu incha allah ci plateau bi pour ñu décortiquer euh, band bi nga xamante ni Sénégal yëpp a ngi koy xaar demain on félicite par anticipation Youssou Ndour comme disait l'autre toujours égal à lui-même merci à toute l'équipe de production dirigée par Apoulaye gërëm Mass Ndiaye ak ñoom madame Guissé Koulim Dioum ñu ñaanal leen bëccëg bu neex ci télévision Futur Média et demain